laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajaalhu zakiran wa shakiran abad wajaal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di ziyaara te di di ñëwaat ak yéen comme ko baaxo ànde ci ay bu jot di fàttalente ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi euh, te ci suñu bind bi mu weesu ñu tolloon ci dog bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu def waaye jagleel ko li nga xam ne mooy biir ak ni ñu ko war a bàyyee xel ak li ñu ci war a dugal euh, dog boobu moom la ñu doon jàngatandoo ak yéen ci suñu bind bi weesu ci suñu bind bi ñuy dugg tey ci dog yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu jagleel cër yi rek ci yooyu lañuy ñuy continuer tey ñu bëgg ànd ak ci dog bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu def jagleel ko li nga xam ne mooy làmmiñ làmmiñ nag doon cër boo xam ne cër bu xaw a euh, jafee lijjanti la te it mën nañoo wax ne cër bu dancin danger la maanaam am na xutuura bu baax a baax a baax ndax li tax suñu borom subhanahu wa taala jël ko moom làmmiñ dugal ko ci biir jël ay bëñ baaree ko ko doyatut mu jël li nga xam ne mooy am tuñ baaree wattu ko kon loolu day wone ne làmmiñ waris na ko wattu bu baax a baax a baax ndax suñu borom subhanahu wa taala sax fa nga xam ne fa ko yóbbu euh, bala koo nit a génne dina am ñaari euh, mbir yoo xam ne dina ko romb muy ay bëñ dooga romb itam ay tuñ dooga génn kon kooku li nga xam ne moo koy génne war naa doon lu leer kon am solo googu nga xam ne làmmiñ am na ko solo su ko ki jëfandikoo ci li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala gërëm euh, moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu bàyyi ko xel waaye ba jagleel ko ab buntu di ñu ci leeral naka lañu ko war a jëfandikoo moom làmmiñ moomu waye naka lañ ko war a sàmmoonte ak ndigal yi nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala digle moo tax mu wax ne faslun ab dog la fi lisaani ci làmmiñ muy wax ne laazim taxool sukurallaahi sant yàlla bi ci ciw làmmiñ waxaabilil ixsaana te nga jàkkaar lool ak rafetal bil ixsaani ci ak rafetal sëriñ bi radiyallahu anhu ne na saw làmmiñ de nanga ci taqoo tudd yàlla nañ ci taqoo sant yàlla na nga ci taqoo sant yàlla waaye it na nga ci taqoo euh, rafetal ngir nga jàkkaar lool ak rafetal bi nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala defal ndax yàlla mi nga xam ne moo la defal aw làmmiñ nga mën a wax mënoon na laa defal aw làmmiñ ba pare def la lu doo mën a wax wala mu bañ laa defal aw làmmiñ kon yàlla mi la ko defal loolu ak rafetal la xam ne euh, jina la ko moom suñu borom bi subhanahu wa taala rafetal googee nag nga war ko koo delloo moo tax sëriñ bi ne na sant yàlla bu baax a baax ci saw làmmiñ Eh, te it rafetal gi nga xam ne moom la la suñu borom subhanahu wa defal nga fexey nga delloo ko ko eh, sant yàlla nag doon loo xam ne eh, nit ki daf koy def ci li nga xam ne moo di aw làmmeñam di ko tudd waaye lépp loo xam ne mooy cër yi nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala def defal mën na cee sant yàlla moo tax sëriñ wax ci masalik xaqiqatu xaqiqatu shukri lada man alima suhuduna min zil jalali niama dëgg-dëgg sant yàlla daal buñ koy wax ca ña xam ne ñooy borom xam-xam ya gëstu xam-xam dëgg-dëgg nee na ñu sedal suñu borom subhanahu wa taala ak màggam waaye seereel ko xiiwal yi nga xam ne moom la ñu defal naka lañ koy seereel xiiwal yi nga xam ne moom la ñu defal mu ne wa amalun biha lisaanan wa janaan fi kulli ma yurda wa ruknan yustaban mu ne mooy lépp loo xam ne mooy cër yi nga xam ne moom la ñu defal euh, euh, sant gi ñu koy sant naka la ciy feeñe mooy ñu koy tudd ci suñu làmmeñ waaye lépp loo xam ne euh, moo di cër yi nga xam ne moom la ñu defal tamit ñu ko ci jëfee mu ci feeñ waaye it ñu koy fas ci suñu xol nee na kon sant yàlla dëgg-dëgg daal bu koy wax mooy nga seere xéewal yi nga xam ne moom la la yàlla defal waaye nga fas ko ci sa xol ba pare nag di ko ci saw làmmeñ ndax yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala moom moo ñu digal xéewal yi nga xam ne moom lañu ñu defal ñu ko ci sant waaye xéewal yi nga xam ne moom la defal ñu koy waxtaane ndax loolu la waxan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis ndax xéewal yi la suñu borom bi subhanahu wa taala defal doo ko ci sant kon sant boobu nga xam ne moom la euh, euh, euh, wala waxtaane boobu nga xam ne moom la ñu war a waxtaane xéewale suñu borom subhanahu wa taala loolu lan lay tegtale mooy sant goo xam ne war nañ ko koo sant moom suñu borom bi subhanahu wa taala kon loolu lu ama am solo la lu ñu war a bàyyi xel muy sant Euh, waaye sant gi mën naa nekk ci ay cër waaye it aw làmmeñ bokk na ci li nga xam ne day fésal sant googee ndax di tudd xéewal yi nga xam ne moom la moom la la suñu borom subhanahu wa taala defal waaye di ko waxtaane waaye jàpp ko ci sa xol mu doon loo xam ne euh, da ngay xam ne yàlla mi nga xam ne moo la ko defal defaloo ko lu tax mu defal la loolu bokk na it ci ni ñu mën a jëfandikoo aw làmmeñ comme ni ñu ko sëriñ bi radiyallahu anhu digale Eh, ñu ciy sant yàlla waaye it ñu ciy tudd eh, li nga xam ne mooy suñu borom bi subhanahu wa ndax tudd yàlla amul lenn loo xam ne moo ko gën a màgg te loolu itam sëriñ bi radiyallahu leeral na ko ci masalik di wax ne amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kana muridu yuksiru qad qultu zalika bila israari wala ubali bi zawil wa kullu man sa'alani fali jawaab xabla wala tujaadilu ahlal kitab nee na euh, li nga xam ne mooy saxal tudd yàlla day nee na mooy li nga xam ne mooy gën a màgg ci li nga xam ne mooy murid euh, ci li li nga xam ne murid bi euh, taxoo na ko wala li nga xam ne murid bi baaxoo na koo def te nee na loolu bu ma koy wax du ma nëbbutu di ko wax du ma làqatu di ko wax te it faalewu ma ñi nga xam ne ñoom ñooy weddi wax jooju ndax man dama am aw lay wu leer woo xam ne li ma wax am naa fu ma ko teg te boo demee ca euh, la nga xam ne moo jëkk walaatu jaadilu ahlal kitaab boo fa demee di nga ko fa fekk ndax suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko wax loola lan la doon mooy la suñu borom subhanahu wa taala di wax ne wala ak akbaru tuddu yàlla mooy li nga xam ne moo gën a màgg tudd yàlla mooy li nga xam ne moo gën a kawe ci loo xam ne moom la euh, euh, ab jaam di def kon bokk na ci itam li nga xam ne mën nañ koo jël wala li nga xam ne mën nañ ko Euh, euh, mën nañ ko euh, jaamoo suñu borom subhanahu wa ci aw làmmiñ mooy di ko tuddu ci ak bari lool tudd gi nag mën naa doon ay anam yu baree bari waaye mën naa wuute lool li ki mel ni di tudd baat baatam yi yi nga xam ne moo koy màggal li ki mel ni laa ilaha illallahu muhammadun rasulullah wala di ko jéggulu moom suñu borom bi subhanahu wa taala wala di tudd màggam gi wala di tudd sellam gi yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne nit ki mën na koo mën na koo saxoo di ko tudd di ko sikkare suñu borom bi subhanahu wa taala ndax tudd ko moom mooy li nga xam ne moo gën a màgg waaye bokk na ci tudd googee li ñu ko mën a euh, li ñu ko mën a jëfandikoo mooy alquranam ju tedd ji nga xam ne euh, dafa digle ñu koy jàng itam euh, foo tollu jël ko di ca di ko jàng di ca nab nab bu baax a baax loolu itam bokk na ci li nga xam ne euh, aw làmmeñ man nga ko jëfandikoo ngir sante ko suñu borom bi subhanahu wa ndax sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi wax ba tey ne euh, mi ngi wax ci kii ba tey euh, ci alquran moom ba tey ne na nga saxal ñetti isib chaque lu gën a néew na nga saxal ñaari isib wala ñett saay soo xëyee adim tilawatan bisal kitaabi walaw salasatan min al ahzabi na nga saxal té téere bi nga xam ne mooy téere suñu borom subhanahu wa taala di alquran na nga ci saxal euh, saa boo xëyee donte ne ñetti isib la waaye bu ko ëppoon sax baax na waaye donte ne ñetti isib sax na ko saxal saabo boo nga di ko jàng kon loolu lan moo koy def cër bi koy def mooy euh, mooy aw làmmiñ te làmmiñ moomu itam euh, lu ama am solo la loo xam ne nit ki mën na cee sukkandiku ngir tudd suñu borom bi subhanahu wa taala sëriñ bi di continuer ci ñun ci buntu boobu rek ba tey mu ne adim saxalal tilaawatal kitaab bi jàng alquran muksira ngay aji baril ko maanaam bul ko def benn yoon waaye bul bul ko def euh, ci semaine bi benn yoon bàyyi waaye bul ko def weer bàyyi di ko gàddaay waaye nee na muksira na nga ko baril na nga ko baril bu fekkee ne saa boo xëyee jàng ci lu bare bare itam bul ko gàddaay mukk saabo boo xëyee fexey bu doon fukki aaya sax wala ñaar fukki aaya nga fexey jàng ko ci euh, waaye it su fekkee ne euh, jamono tënk na la ba mënoo ko baril saa su ne tamit bul xëy mukkute yoroo ko donte ne euh, ñaari aaya nga ci jàng waaye nag sëriñ bi nee na na nga ko saxal waaye boo koy saxal nga baril ko ngir baril gi nga xam ne moom nga koy baril tuyaaba ju rëy a rëy daf nekk Eh, bihi salaatan maa salaamin kasura topp ca itam na nga saxal salaatu ak salaam muy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ak di ko ñaanal jàmm moom itam na koy baril bul ko bul ko bul waaye koy baril ala ajalil alamina ahmada bi alihi ma sahabi tuhmada nee na kooku nga xam ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne moo gën a màgg ci mbindeefi suñu borom subhanahu wa taala moom itam na ngay baril tudd goo xam ne moom nga koy tudd ci saw làmmeñ waaye na ngay baril julli goo xam ne moom ngay julli ci moom moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon ñaar yooyu rek muy jàng alquran ak julli ci yonente bi rek bu fekkoon ne da saxaal koo saxal dong saw làmmiñ du loolu loolu dong tawfeex lay doon waaye xéewal lay doon ci ki nga xam ne mooy euh, mooy mooy mooy mooy euh, jaam bi ndax yooyu bu ci ne suñu borom bi subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moom moo ko digle ndax moo digle ñu war a jàng alquran waaye it euh, ñu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam war na ab jullit benn yoon jullit bu ne war na ko benn yoon ci ak dundam waaye nag baril ga moom bokk na ci li nga xam ne bokk na ci li suñu borom subhanahu wa taala gën a sopp waaye bokk na ci li nga xam ne Euh, mën naa xettali jaam bi bu baax a baax a baax ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa taslima kon loolu ndig digal la ndigle la leer naññ loo xam ne dañu ko euh, war a jëfe euh, sëriñ bi di waxaat ci masaalik ba tey ne sëriñ bi di waxaat ci masaalik ba tey ne ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne amma salaatuna ala nabiyi muhammadun xayru bani lu ayyi fa hiya afdalu ma tamassakta bihi baada adaa'il fardi fan faltanta bi nee na ginnaaw boo joxe farata yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle ba tey de ba pare de amut lenn loo xam ne moo gën a màgg di julli ci yonente bi sallallahu wa sallam loolu nag nee Euh, borom xam-xam bu màgg boobu nga xam ne as-Sanusi moom mooy ki nga xam ne moo ko yaxal kon loolu li mu ñuy euh, tegtale rek mooy màgg goo xam ne yonente bi sallallahu màgg na ko waaye bàyyi xel buñ ko war a bàyyi xel waaye julli goo xam ne war nañ koo saxal di ko julli ci moom euh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi radiyallahu anhu digal na la ngay jàngal Qur'an di ko baril ba pare la mu la ca tegal mooy del julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam saxal ko waaye dee ko dee ko baril di def lu baree baree bari kon yooyu yëpp bokk na ci loo xam ne nit ki mën na cee dimbandikoo ci aw làmmiñam ngir mu man koo aar ci lépp loo xam ne ñaawteef lay doon waaye lépp loo xam ne lu bon lay doon ndax euh, li nga xam ne moo di aw làmmiñ nit ci nit ki mën a jëlee euh, aw yiw jële ci euh, tanow ba muy jële ci tuyaabu ju baree baree bari noonu itam la ci mën a jëlee ay bàkkaar waaye noonu la ci noonu la ko mën a wommate ba jëme ko sawara wala waliyaasu billah kon loolu war naa tax ñu fonkaat làmmeñ bu baax a baax waaye xam itam ni nga xam ne noonu lañ ko jëfee bañ cee tudd li nga xam ne mooy awraay jàmbur awraay jàmbur mooy lépp loo xam ne nit ki dafay bañ ko ko tuddal euh, nga euh, bañ koo tudd ngir xam ne yow mi am nga awra am nga ay ayib te saa bu la nit ki tuddalee say ayib du la neex saa bu la nit ki tuddalee say awra euh, doodul loo xam ne di la ne neex moo tax kon nit ki war naa moytandiku di tudd ci aw làmmiñam li nga xam ne mooy euh, awraay jàmbur waaye war naa moytandiku di tudd ci euh, nit ki lépp loo xam ne bu ko yëgee mu naqari ndax sëriñ bi radiyallahu anhu nee na nit ki ni mu mën a suturaale ay ayibam mooy euh, mu sutural ayibu jàmbur su fekkee ne yow da nga suturaal ayibu rek sa ayib suturawu kenn du ko tudd waaye soo tuddee ayibu jàmbur rek ñu tudd sa ayib ndax ni nga amee aw làmmeñ noonu la euh, nit ñi ame ame aw làmmeñ moo tax sëriñ bi di wax ne isa siita an tahya wa diinuka saalimun wa xazuka mawfurun wa irduka sayyinun lisaanaka la tazkur bihi awrata mri'in fa indaka awratun walinnaasi walinnaasi alsunu nee su fekkee ne bëgg ngaa euh, dund day lëwal sa li nga xam ne mooy sa diine mucc yow ci sa wàllu bopp ba kenn du la jàmm nee na saw làmmiñ bul ci tudd awray jàmbur nee na ndax ni nga amee aw làmmiñ ba mën a tuddee awray jàmbur noonu itam noonu la euh, nit ñi amee aw làmmiñ ba man cee tudd euh, say awra kon soo dee tudd nit ñi nanga leen di tudd ci lu baax waaye nanga nga tamal saw làmmiñ lu baax loo xam ne tuyaaba rek la jural waaye du la jural yenn jafe-jafe waaye du la jural lenn loo xam ne mooy euh, merum suñu borom subhanahu wa taala moo tax muy waxaat ci nax ju ba tey ne awwit lisaanaka xawlal xayri tuxza bihi inna lisaana li ma awatta yaataadu nee na na ngay tàmmal saw làmmeñ jëf ju baax na ngay tàmmal saw làmmeñ wax ju baax na ngay tàmmal saw làmmeñ wax ju baax ndax wax ju baax teg ci nga mën a ami aw yiw te aw làmmiñ itam li nga xam ne moom nga ko tàmmal rek loola rek lay tàmm loola rek lay wéy di def fu mu toll euh, muy waxaat euh, ginnaaw bi nga xamee ne euh, adim tilawatal kitaabi muksira bihi salatan ma salaamin kasura ala ajallil alamina ahmada bi alihi ma sihaabi tuhmada mu ne la nag wal tatrukanna kullama ay xanta bi kawnihil xaraama aw zananta ñene lépp loo xam ne wér na la ne lii lu araam la nee na loolu na nga ko moytandiku bu baax a baax a baax lépp loo xam ne lii wër na la ne lu araam la loola na nga ko moytandiku bu baax a baax a baax nañ nga ca bañ a tàbbi walla lépp loo xam ne sax da ngaa jàpp da ngaa jortu ne lii sax lu araam la amoo ci yaqin sax ne lii lu araam la waaye jortu nga ko yooyu nag euh, yu bëree bëri la bokk na ci di euh, euh, ŋàññ ay jullit wala Euh, euh, jullit ñi nga leen di tudd ci loo xam ne wala ku dul jullit sax nga koy tudd ci loo xam ne bu ko déggoon du ko neex lu mel ni jëw lu mel ni rambaaje lu mel ni euh, wax loo xam ne dafa juuyoo ak li am yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne jullit bi daf ko war a moytandiku ndax loolu lu wér la ne dafa araam kon war nga ko bàyyi xel ba doo ko doo ko doo ko tudd kon fexeyal ba booy tudd ci saw làmmiñ ngay tudd loo xam ne yàlla da ko gërëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko waaye it saa boo koy euh, tudd itam nga euh, euh, looy tudd tamit ngay bàyyi xel ñaari malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci say mbagg ndax lépp loo xam ne moom la nit ki wax ci aw làmmiñam ñoom dinañ ko dégg te bu fekkee ne lu jubut la dinañ la ca bindal bàkkaar waaye su fekkee lu jub la itam mën nañ la caa bindal li nga xam ne mooy tuyaaba mooy li suñu borom di wax ne maa yalfizu min xawlin illa ladayhi raqibun wa atid kon képp koo xam ne da ngay wax rek war ngaa peese bu baax li ngay wax war ngaa xel bu baax a baax li ngay wax ndax ñaari malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci say mbagg te lépp loo xam ne moom nga wax euh, ñoom dañu koy bind euh, dañu koy bind kon euh, booy wax nanga nga wax lu baax bu fekkee ne mënoo wax lu baax nga noppi comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxe man kaana yuminu billahi wal yawmil aw li képp koo xam gëm nga yàlla gëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam deel wax aw yiw te noppi wax aw yiw te noppi bul di ŋàññ nit bul di jëw nit ñi euh, ndax jëw bokk na ci li nga xam ne moo gën a bon loo xam ne mën naa dugal euh, nit ki sawara waaye man mën naa tax nit ki euh, amee bu baax a baax merum suñu borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla moo wax ci alquran ne ya ayyuha allazina amanu ittanibu kasiran min az-zanni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yaxtab ba'dukum ba'dan bi mu ne bu bu kenn jëw euh, bu kenn jëw jëw kenn ci yéen euh, bu jëw morom ma lamu mu jote mooy ndax kenn ci yéen bëggoon na mbokkam faatu muy dagg ca ndawaluk mbokkam moom mi nga faatu di euh, faatu di ko lekk kenn bëggut lu mel noonu kon koo xam ne nag bëggoo lu mel noonu war ngaa sàmm bu baax a baax li nga xam ne mooy derub jullit ba doo ko tudd ci loo xam ne bu ko déggoon du ko neex la ndax euh, loolu lu suñu borom subhanahu wa taala aramal kon loolu nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala araamal muy lu mel ni jëw muy lu mel ni wax loo xam ne dafa juuyoo ak li am muy mu mel ni euh, lu mel ni di rambaaji nit ñi ak yooyu yooyu yëpp dañ cee war a aara saw làmmiñ sàmm ko ci ba euh, doo ko ci tudd doo ko ci tudd ndax loolu mooy li nga xam ne mooy muccal saw làmmiñ kon làmmiñ cër la boo xam ne nit ki war na koo bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moom la ci yàlla digle euh, ci sant ko waaye ci di baril tudd suñu borom subhanahu wa waaye di baril julli ci yonente bi Eh, loolu bokk na ci li nga xam ne sopp nañ ko lool ci aw làmmiñ saa boo demee nag ba xam ne yooyu mënoo cee def yooyu benn bu boobaa la xam ne moom la ci suñu borom tere moom nanga ko moytu ko bu baax a baax ba doo ca tàbbi kon eh, dog boobu loolu lañ ci sëriñ bi radiyallahu anhu andil muy làmmiñ ak ñi nga xam ne noonu lañ ko war a jëfandikoo di ci topp suñu boroom waaye noonu lañ ko war a moytandikoo ngir bañ cee mooy li nga xam ne moo di euh, suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne euh, laazim sukurallahi bil lisaani wa xaabilil ihsaana bil adim tilawatal kitaabi muksira bihi salatan ma salaamin kasura ala ajallil aalamina ahmada bi alihi ma tuhmada wal tatrukanna kullama ay bi kawnihi al aw zananta nee na na nga taqoo suñu euh, sant suñu borom subhanahu wa taala ci saw làmmiñ te li nga xam ne mooy rafet euh, jëf ju baax li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala defal muy lu rafet li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala defal nga jàkkaarlool ko ak rafetal te nga saxal jàng alquran ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lépp loo xam ne wér na le ne lii lu baaxul la Euh, lu yor lu yàlla araamal la na nga ko moytandiku waaye lépp loo xam ne sax njortu nga ne lii dong lu yàlla araam la loolu na nga ko moytandiku waxatumaa nag loo xam ne wér na la ne lii lu araam la kon loolu lañ andi woon tey di tuub bu baax tey jéggulu di euh, wax ne lu ci jub rek suñu borom bi subhanahu wa lu ci dëng ngeen xam ne jàmbu xeebu bi ko doon def la in uridu illa al islaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu على الصحابة وسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات